Euh, ci njëlbeen gi dafa wax nii mm-hmm. li mu tàmbalee xam lislaam nee na dafa fooyee benn jaare jaario mooy journal mm-hmm. journal boo xam ne day génn Argentine mm-hmm. nee na ci la tàmbalee découvrir kan mooy Serigne waa ñoom dama ko fàtte ci biir wax ji nee na ñoom tamit dañoo taxawal benn daayira boo xam ne ngi tudd maam soxna maam jaare mi ngi nekk Argentine fu ñu wax euh, ab euh, después de Buenos Aires comment est el daayira donde moroon ah, Morón benn daayira boo xam ne mi ngi nekk moroon boo xam ne ñoom soxna yi ñoom ñëpp ay tubaab lañ ñoom ñëpp ay argentin lañ ñoo ci nekk di ci liggéey Sëñ Tuubaa mm-hmm. góor-góor wax dëgg yàlla jàmbaare ci loolu nag wax dëgg yàlla ñu bari ci ñoom dañuy tuub mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu am fa ay téere yoo xam ne dañu koy traduire espagnol ko jox ñoom mm-hmm. dañ leen ci enseigner mooy dañ leen ci jàngal yoon bu baax a baax a baax a baax seen diine ñoom waaw ñu tuub ñëpp moom bi tamit nee na borom këram bi nga xam ne mooy Assane Diop tamit mooy borom këram daf ko doon maanaam tette ci yoon wi di ko ci leeral lu bëri bëri ci yoonu murit ki nga xamante ne mooy seen jëwriñ tamit moo ko tànn pour mu ñëw fii mhm. parce que comité bi nga xam ne yaakaar naa mooy comité bi nekk fii Touba ñoom dañuy def en général su màggal waree jot dañuy tànn ci dëkk yi kenn ku ci nekk war a jógee ci dëkk yooyu ñëw fii nii mhm. moom mii lañ tànn nag pour moom mu ñëw fii mhm. loolu mooy li jot a wax waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw alhamdulilah merci Sénégal jërëjëf ne tamit dafa kontaan lool ndax dafa ñëw dëkk bi ñëpp ubbil ko ay buntu te da ko da ko neex lool moo tax ne nangul ñibbi sax <laughs> si hace cuatro meses que estoy acá y no me quiero ir waaw alhamdulilah di nuyu ak njabootam. di uh-huh. yóbbu ndum nuyoo ci waa këram. borom uh-huh. këram ak njabootam. El llegó estoy saludando con tus hijos, con tu marido también. yoo bokk gi mu bokk ci ummatu Muhammad na ci sant yàlla bu baax xam ne bu yàgg la ko suñu borom tànnoon mu war cee bokk. bindee roox yi te bind ko ñi. boobu lañ tànn ñu war a dugg ci xeetu Muhammad sëriñ bi di wax yaa ngi bisimilah buñ bindee ruu yëpp mhm. te bind guñ nit seen bopp booba lañ tànn ñu war a bokk ci xeetu Muhammad boobu nag kuñ ci tànnutoon nga war cee bokk mënoo cee bokk mukk ci tànn it mënoo cee génn sa bopp. Allahu akbar. ndaar ko waxaat ma ko. xamoo ko buñ xam nga nit ñi dañ leen a bind bu yàgg te ñëwaguñ ci suuf mhm. yàlla ruux yi la njëkk bind ci leeru yonent bi ruux nag ba ko bindee dafa wax sallallahu ne ko danaa laaj ruux yi leen ndax duma seen borom mhm. boobaa nag na nga wuyu wax ne ah kay yaa nu bind yaa nu moom yaay seen borom alastu bi rabbikum xaalu bale mhm. kon ruux la suñu borom doon waxal booba ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo njëkk a wuyu. allahu akbar tawfeex jun am noonu nag mooy. Mm-hmm. sunu waa ji yonent bi da ko teel a dëy ca ruya ba ñuy nekk ruux. Mm-hmm. te ñëwaguñ ci àdduna. ne ko lii dana am. boo boobaa nag bu ma waxee lii rek yow itam tontu fi sax. allahu akbar kon yonent bi sallallahu alayhi ba mu tontoo ba ne ah kay yaay sunu borom yaanu moom nangul yàlla. parce mm-hmm. que sëriñ bi moo njëkk a kon bu yonent bi noppee rek moo jot moo tax bi yonent bi tànnee ba noppi mhm. yonent bi ne ko tànnal moom dimu tànn ci ñee waaye daa tànnal ci xeetu yonent bi waa kër moo tax moom doon gi mu doon xeetu Muhammad mhm. daa bokkoon ci tànn joojee allahu akbar doon gi mu doon murit it sëñ bi da ko tànnaat ñoom indiwaat ko mu doon murit allahu akbar loolu ko may alhamdulillah Jadi sebenarnya kesan muy complicado para ese lugar. Para tener una forma para decirte para que vos te algo. Estoy diciendo tenemos dos hijos, por ejemplo. Hoy estamos acá, mañana cuando muero nosotros tenemos otra vida, ¿sabes? Entonces, cuando estamos allá, si nadie no vino para acá, del mundo, Dios te elegí, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te doy una orden, digo, si estamos armando la RU, RU significa una cosa para nosotros, tiene que respirar, ¿entiendes? kuanduta mm-hmm. shame la primera bostenekadisie labayka mm-hmm. entendés mm-hmm. entonces Dios te elige Mohamed pero vos vos sos cuando Dios te elige a vos también Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba te elige a ¿Entendés? Una cosa muy importante. No, no te lloré. Tranquilo. téere yi sëriñ bi ko bind. te kenn ku ne ci ñi ko topp. bàyyil na la loo xam ne ci ngi sukkandiku. ba doo réer doo doo doo doo jàdd. nga war a jëf ak li nga war a moytandiku yëpp. suñ bàyyi ko fi ak ni nga war a jaamu yàlla ak ni nga a jëfan jëflante ak sa moromu jaam. incha allah moo tax allah te dooy esto. uno regalo para ti. Sí. Esto significa el Islam tiene una ley. Nadie no puede hacer todo lo que le quiere. Cuando le vengan ganas, hace algo, no. un camino, cada uno tiene un camino. Pero el te elige un camino muy lindo, muy bonito, como vos sientes con tu corazón. Este que van la ley, te a sentir algo, sabía que es muy importante para ti, por tu camino, por tu familia, por tus hijos también. Te dice lo mejor Dios te bendiga, mm. como siempre si Dios quiere. <laughs> Gracias. A partir de hoy, mm -hmm. vos con él lo mismo de Xaadim Rasul lo mismo de Xaadim Rasul sa maam la te digo a partir de hoy Xaadim Rasul tu abuelo como él también gracias gracias akasa jërëjëf dame tu mano así sí